ci defar masque yi nga xamante ne ni moom moom la ñu amoon yéene yéene bi rek mooy defar un million de masques pour xeex contre coronavirus bi Grand Dakar kon Omar au nom de toute la population gërëm ba wax ci masques yu bëri yi nga xam yëpp. comme comme ni nga waxee rek marché Grand Dakar encore aujourd'hui bi ñu amoon mooy defar un million de masques pour waa Grand Dakar yëpp tey jii tey tey Grand ci jàpp tey suñu grand membre Ngom. nekk tailleur bu mag nekk marché Grand Dakar moo koy moo ci jàpp moom tamit ñoom yu rafet yëpp may ko population Grand Dakar kon ko waa Grand Dakar yëpp xam nga Mamour Ngom bi nekk ci vraiment moo moo ko may muy participation nag ci xeex coronavirus bi ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërëjëf. gars yi nekk moom ci tailleur yi nga xamante ne ci Grand Dakar la moom mi ngi jàpp ci li nga xam mooy faxas corona bi. vraiment jàpp na defar na ay masque jox ko faxas jeunesse bi faxas corona ci waa Grand Dakar ñoo ko moom. comme ni ko gars yi waxee ne dañoo bëgg a defal le maximum de masque ba 2 millions de masques pour la population de Grand Dakar. <laughs> waaw gars yi.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 xam li nga xam